sant yàlla rek ndax bi sëriñ bi ñaanee suñu boroom na ndox wàcc te lii ndoxu jàmm la en l'époque nit ñi dañ dut dañuy fàtte ndax ndox mi ko gën a bari amoon na fi en 2007 2006 registre yi ne ci biir commune bi ci jamono yooyu tooyan na lii route nationale la ma jàpp ne nag tey ab route nationale surtout autoroute état bu ko def war nga fi def assainissement boo xamante ne tey mooy fàggu ndox mi tey bi camp d'urgence amee ñu. saisir état mu yebal fi ñi nga xam ne say mooy Ageroute kero bi ñuy defar lii ñun dañoo xëy xëy rek gis muy defar jàpp naa ne tey bu fekkoon ne maire bi associé nañ ko fi tey jii commune bi amee ndox kon jàpp naa ndox du fi amee. maire bi du mooy responsable li ñu bëri dañ ne moom moo ko def. non non xam nga day commune moom saa dafa weex dunq ci lépp te dañu war fàttali ko ne commune dafa bokk ci alali Sëñ Tuubaa sans conseil lañ fi tànn jiital maire c'est pas maire kese moo fi nekk li muy mën a jëf it mooy ndigal. mënuñu xëy gis état sëriñ bi yebal leen fi ñuy liggéey ñu ne leen li ngeen di liggéey duñ ngeen ko fi liggéey la preuve mooy foos a ngi nii foos boo xam ne bi ñu ko fiy def ci kaw tuyau bi lañ ko tegoon maawu raxmati bi ñu ñëwee dañ ko arrêté ba mu indi fi ay loo xam ne booba ñun taxaw nañu wax leen ne ndox mi de bu ngeen ko dégagé fële ci biir commune bi la jëm kon maire